de la soirée Modou Pouye lutteur numéro 2 Bass Njongoloor lutteur numéro 2 moom mooy borom ngeen bulu ñuul Modou Pouye bu mbaaw Bass Njongoloor moom mooy borom ngeen bulu foofu lu moo wër gannaaw a Diafakan dama dem defaaseeteer waaw waaw cey Kumba Jabe Diouf ak Fatou Bangaleer ñoom ñooy assuré ambiance bi Maodo ndeysaan tunda nii waaw waaw Bass Ndiambo Lor wala Sa Thiès numéro 2 Bass moom mooy borom ngémbul xonk li moo féete à droite Modou Pouy bu mbaaw wala luy cër numéro 2 yéen a na yaate su ma rogo bopp na ma afkaane cey waay seen société à deuxième dikk na ma ne coono jeex na yow mi yitewoo ay matériel informatique wala fourniture de bureau yi mun a doon a dawal gaaw ca Médina rue 17 angle Blaise Diagne ma ne te centre commercial Roxy ba demal ci centre numéro cinquante 54 wala 57 matériel informatique boo soxla wala lu mun ci doon ci lu dem ci fourniture de bureau da nga ko fa fekk amul jot wala temps de da ngay daal ci 77 550 04 04 voilà ben si numéro yoyu affiché ci souf livraison bi na partout fi ci Dakar la ak fo mun a ci Sénégal dinañ fexé ba nga jot matériel informatique voilà fourniture de bureau. li ci gëna neex moy original lañ fay jaay ci ay prix yu abordable ah ah deuxième dal Amadou Makhtar ak Mohamed coono jeexna tout droit centre commercial Roxy Medina.